la Tony HLM. waaw. depuis ay quatre ans. quatre ans. waaw condensé bi mooy dañ dëkk HLM dañ dëkk HLM nekk ay jeunes HLM war a bëree mais sa instant dama amoon combat boo xam ne dañ ko doon dox nii mais. ci booy bi la yàqu instant yi ci caatu Colobane parce que suñu manager dafa dox combat bi ba sonn mais booy bi manager am ci boppam jëloon na avance jëloon na avance ba pare ne moom yëg yëgul ba ba bi di jël avance amul benn booy bu ñuy jox avance te sa yow sa manager du ko yëg te doo ko yëg ci ginnaawam waaw te yëgu ko parce que ñoom ménager yi ñoom dañuy waxante seen biir ñoom balaa ñoo def dara dañ lay oo ba pare dañ lay dafa tiit parce que HLM bi ma dëkk HLM bi ma dëkk non booy boo si ne booy avance booy tourné ngi nii du ko jël man def na arène nak dugaguma bi ma don sama premier combat arène mais mbapat na ba sonu li boy tëlee ah, la def mo ngi jumur beure arène No, su ma juumul Ya combat la am non jàpp ko dafa daw yalla xamna dafa daw non promoteur yi di budul mom di yenen boy bu dul moom di yeneen booy man bañu ma kenn man làmb mooy sama métier moom lay dund moom laay yaakaar man dama teg cin de te may xaar dafa bëri. football la xam nga lu tax ñun dañoo demoon ba découragé woon ci loolu mais gis nga man xam nga lan moo lan moo tax ma duggaat ci làmb man lan moo tax ma duggaat ci làmb mooy génération bii dañ 14 41 dañ commencé dund làmb te HLM li fi manqué laay dem jëli ji mooy victoire yi manqué HLM ci leneen lu dul làmb làmb daf fi làmb amagul fi victoire te dama koy jëli. quoi. que ñoom ñe. parce que ñooñu. munu am na ñu leen munal jàppale am na ñu leen munul jàppale parce que ñooñu man Alou Badou waaw dama koy saluer au passage parce que moom moom jàmbaar la booy dakaar tamit jàmbaar la mais xam nga lan mooy problème bi. mooy làmb da nga koy donn dëgg la de da nga koy donn waaw ñàkkoon jàppale parce que ñàkk jàppale bi daf ciy bokk saa fii ñun autorité HLM yi dañ ñu war a dimbali ñun jënu ñun HLM làmb ëxlu làmb dañ ñu war a dimbali ñun bu ñu amoon ku ñu puus tuuti rek barki sëriñ Touba lu ñun xolal bu ñu génnee lu ñu soxla dañ koy jël. loolu nag ñun man loolu ku ma koy wax mooy alubadu moom warul bàyyi na ñëw créer. fi écrit parce que boy HLM yi commencé nañ dund lamb du ñun rek yenen boy yeneen booy yu ci biir caatu HLM a ngi fi ñepp ngi fi waaw ñun dañu te barki Seigne Touba gis nga man surtout waxuma xawma keneen de mais man barke alquran karim luma lamb jaral man fuma taxaw dañuy xamné ne faada faada bi taxaw na Bachir. billaay jaral nañu ko lu ko ëppal. billaay wallaay lu raw loolu. billaay lu raw loolu. ñun jaral nañu ko ñun làmb lañu xam. ñun làmb la ñuy dund. ku ñuy jàppale ci làmb nga ñuy jàppale. billaay wallaay parce que dañ taxaw ne jeunes yi fii bëgguñu def dara bëgguñu def dara. ñun dañuy lamb ñun te barki seigne Touba dañ koy yox dañ koy jële ji wallaay ñan nga nga bëgg waxal Cheikh mbay ya ngi fi Cheikh mbay dugalal sa loxo bu baax ci lamb ji ay matar ñoo ngi fi monsieur le maire man mom la gëna am lu may waxal parce que moy maire gox bi ay mon colonel ñoo ngi fi bari nañ ku lim jum grand maam bi jaw rek laa la wax amul lum ñu dul defaral ay grand biram jàllo parce que dañuy tax ñuy dund làmb ñooñu ñooñu bu ñu amee combat amul luñ ci dul def. jël moom xam na moom xam na lu ma koy wax Pape Mamadou Sow international. billaay wallaay damay am ay combat par yenn saa daf may entraîner moom ñun bu dee entraînement fii possibilité entraînement muy physique di lépp ku si mel ni Insa Diop rek ku ko ku ne xam na ko international la. billaa wallaay ñun bu dee entraînement bi ñun dañuy entraîner bay dee ci làmb loolu daf ñu ko jaral parce que ku xam HLM xam HLM HLM musul yaafuus ci entraînement képp ku dëkk HLM musoo yaafuus saa waay ñun HLM la lépp génnee waaw gën a waaw ay ñoom ku si mel ni vieux ñaay ay grand vieux ñaay ay Cheikh Mbaye Ah, ku si mel ni gars yi ñoom biram moo colonel man surtout mon kolonel bàyyi nañu gën a jàppale ci làmb ji El Hadj Douanier moom de li ma koy wax mooy xam nga caatu Kolobaan li ma koy wax mooy na jël làmb ji te xam ne bii King Kong bi la du moom rek laa fi bàyyi de man déggoo ma ne la xam nga kan laa fi bàyyi man xaju zone 3 laa fi bàyyi mais bu ku dul xaju HLM boo xoo HLM ku ma tëgg lu làmb ma bëreeg yow. mafia 14 41 bi ah ñàpp bi ma fii ma nekk tey mafia 14 41 ñàpp dama leen di xamal ne dinañ dégg lu ne. naan dañuy bu ñu mus a découragé te barke alxuraan ñoom xam nañ ne buñ bis bu ma duggee biir stade biir arena barke alxuraanu karim HLM am ndam bu rëy. bàyyiwuma kenn nag parce que man du ma cuub sama drapeau sama deret mu tuuru man sama deret tuuru moo gën sama drapeau di cuub. samay supporter barki Serigne Touba nañ gën a jàpp te taw bàyyi te xam ne man bii faada faada la bii faada faada la du yooyu barki alxuraan bu dof king kong bi la samay supporter ñii seen cent ak seen juróom lañ may jox may téye kon xeebu ma leen de ñii laa am man déggoo ma ne la man waxuma sax samay supporter dama mais dama ne lépp lu nga xam ne lu bokk HLM la xaju HLM sax moo ma gënal leneen kon samay supporters ñii aw ma seen fay.